أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه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 ñu ngi woon ba tey ci kitaabul janaa'iz wal jaami saxiix bu amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibn ismail al buxaari alayhi raxmatu wa baari ci sunu jootaay bi weesu gisoon nañ ci baabul kafani fii saw buntug mbala mala mbalaanu eh, wala càngaay ci ñaari mbalaan gisoon nañ ci xadis seen abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom lay nettali ki nga xamante ne moom moo daanoo woon ci gëléem ci ci gëléemam euh, ca Arafa euh, bu loos wi damm mu daal làqu génn àdduna ci saasi yenent bi sallallahu alayhi wa bi muy wax ci ay mbiram dafa ne wa kaffinuhu fi thawbayni wala tuxannituhu wala tuxammiru ra'sahu fa innahu yubaas yubaas yowma alqiyaamati mulabbiya mu ne na ko càng euh, ci ñaari mbalaan te bulen ko e, defal gëtt te bulen muur bop bi ndaxam naka moom kat bu yowman qiyaame dafay dekk nekk koo xam ne day talbiya day wax la bayka allahuma la bayka bu comme ni nga xam ne noonu la kii xaj di wax gisoon nañ ci tamit baabul xunuuti lil mayit baabul xanuuti lil mayit bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci gëtt gi ñuy defal ki nga xam ne moom mooy e, ki faatu ñu daal di gis ne yenente bi salallah alih wa sallam ba tey ci kooku lamu wax ne daf ni wala tuxannituhu maanaam bu leen ko defal gëtt muy xadis boobu gisoon nañ ko ci ba tey muy xadis seydna abdullah bin abbas bi radiallahu anhuma léegi nag tamit ñu daal di gisoon tamit baabun kayfa yukaffanul muhrim bunt bi nga xam ne mooy wax ana nak la ñuy ki nga xam ne moom mooy muhrim bi mooy ki nekk di ihram loolu tamit gisoon nañu te fekk waajooju mu ne yenente bi seydna abdullah bin abbas radiallahu anhuma daal di wax ne waaj moom Euh, muxaram la euh, loolu mu daadi wax ne ne soluhu bi maa in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn wala tumissu tiiban wala tuxammiru rasa mu daa wax ne euh, na ngeen ko sang ci ndox ak déem te nangeen ko sàng ci ñaari yëre maanaam kon nga xam ne ci ñaari yëre yooyu dañ koy sànge mu ne waaye bu leen ko laalal li nga xam ne mooy gëtt waaye tam bu leen bi ñu xam ne kon bopp bi duñ ko muur waaye comme niñ ko gise woon ne ñaari wax ñoo ci am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme niñ ko gise woon ci suñ jotaay bi weesu mu ne fa inna allaha yabaatuhu yawmal qiyaamati mulabbiya naka buur yàlla daf koy dekkal yawmal qiyaamati mu nekk koo xam ne da day day woo day day talbiya maanaam naka noonu eh, gisoon nañ ko tamit ci beneen ci riwaaya eh, ci beneen bu mu indi mu daal di wax ne fa innahu yubaasu yowma alqiyamati yu labbi wala boog yubaasu yowma alqiyamati mu labbiya comme gisoon nañu tamit baabu ci tàmbali woon nañ ci baabul kafani fi lqamis alladi yukaffu aw laa yukaffu wa man kuffina bi geyri qamisin mu daal di wax ne bunt bi nga xam ne moom mooy càngaay ci bu nit ki buñ ko sàngee ci boo xam ne loo xam ne xamis la te moom mooy loo xam ne dafa am tàmbale ci euh, <coughs> euh, li li li ci mbagg yi wàcc ci suuf wala boog nga xam dañ koo sàngee ci loo xamante ne <coughs> euh, wala boog loo xam ne lu du dina dina doy wala boog loo xamante ne du doy wala boog loo xam ne dana fegalaate wala boog du lu fegalaate ak ki nga xamante ne dañ koo dañ koo <coughs> dañ koo sàng ci loo xamante ne amul xamis mu ñu daal di gisoon xadis sayidna abdullah ibn umar bi radiallahu taala anhuma muy nettali bi nga xamante ne moom la abdullah ibn ubay ibn salul génnoon àdduna moom mi nga xam ne moom mooy njiitu naafiq yi ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nga xam ne doomam ci la ñëw ne ko in jo yenante bi sallallahu alayhi jox ma euh, yére maanaam làmbaayam bi maanaam wala boog sa xamis bi ma daat ko koy sànge te nga jéggalul ko te nga jullee ko te nga jéggalul ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ko koy jox maanaam ba ni nga xamante ne noonu la ñëwee di ko jullee ak yi nga xam ne moom moo ci aju woon gisoon nañ ko yenente bi borom bi subhaanahu wa taala tere woon ko ko ne ko wala tusalli ala ahadin minhum mata abada bul julleete ci kenn koo xam te ne génn na ñoom àdduna ñoom naa feq léegi nag mu dañu daal di war a gis nag li nga xam ne moom mooy jeexal bunt boobu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awal kitaabi lay xaddathana malik ibnu ismail te moom mooy ibnu dirham mooy abu ghassan an-nahdi di waa kuufa rahimahullahu taala nekkoon ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa gënoon a dëgër comme ni nga xam ne moom al abu xaatim waxoon rahimahullah mu ne kuufa gisuma fa ku fa gën a dëgër ki nga xamante ne moom mooy abu ghassan bi di malik ibnu ismail an-nahdi rahimahullahu taala moom gisoon nañu ay xadiisam ci imaam sax imaam buxaari rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala xaddathana ibnu uyayna muy sufyaan ibnu uyaynata ibnu maymun alhilaali rahimahullahu taala muy abu muhammad alkuufi waa makka tamit di makki di kuufi ma makki rahimahullahu taala gane àdduna cent septième année génn àdduna ci weeru rajab cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an amrin te moom mooy ibnu dinar al makki muy abu muhammad al asram rahimahullahu taala di waa makka muy gane àdduna 46e année génn àdduna 126e année bi sallallahu alayhi jaabir mu jaabir mu jaabir ibn abdullah ibn haram al ansari radiallahu taala anhu moom mi ngi génn àdduna ci 78e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam موم منو قال اتا ذكرنا النبي ينتبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي مو ابن سلول بعدما غيناو بيغا خامتني دوفينا لنجو روب فا اخرجه مودادكو يغيني مانام مودادكو يغيني غيناو بيغا خامتني روب نانكو كو نوبي فنا لول تاب دوي مام فنفث مودادو ولفي من ريقه تي تفلتم Euh, wa albasahu mu daal di koy solal xamisahu xamisam maanaam mooy xamis bi nga xam ne moom la soloon moom yenente bi sallallahu alayhi wa jox ko ko loola tax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu wuute ndax dafa joxoon maam ci xadis seydna abdullah ibn omar bi radiyallahu anhu nga xamante ne waxoon na ne daf ko koo jox ak fii nga xamante ne dafa ne daf koo fekk ci bàmmeel mu dindiwaat ko dugal ko ngir ne wax ne waa këram ñoom dañoo bañoon maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maam dañoo ragaloon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw Euh, ngir euh, bugguñu ko woon sonal fekk doom ji moom demoon na ba laaj ko ba pare ne nañ nañ ko indi maanaam loolu ñoo ñoom nag ñoo moo tax ñu gaaw koo jullee dem dugal ko rob ko ñu gaaw koo rob loolu nag bi ñu ñëwee ñi nga xamante ne nag euh, ñu gis ni kon ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee la gis ne kon ah yére bi maanaam kon waxu Seydina Seydina naa ibn Umar bi radiyallahu anhu mooy ne li muy tekki ci waxu ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mooy ne ah kon en fait joxu ko ko woon waaye dañ naan jox na ko ko li muy tekki rek mooy comme nee woon na ko danaa la ko jox maanaam mook jox na ko ko benn la moo tax ba mu ñëwee mu def li nga xam ne moom lañ ko wax loolu moom mooy benn ci wax ji waaye beneen wax ji moom mooy rek dafa ñëw eh, maanaam daf ko njëkk solal yére bi waaye ginnaaw gi mu ñëwaat solalaat ko beneen xamisam maanaam muy ñaari xamis yoo xamante ne moom la ko solal waaye tamit génn gi nga xam ne moom lañ ko génne ci bàmmeel bi loolu borom xam-xam yi rahmatullah dañ ciy sukkandikoo di wax ne bu fekkente ne aajo dafa am maanaam dañoo soxla ngir benn aajo bu jàmp bu xam te ne wala boog loo xam ne mënta ñàkk loolu moo tax ñu war a mën a sulli néew bi maanaam loolu day du nekk loo xam ne lu aay la maanaam mooy lu dagal la ngir ne Seydina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom defal na ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul maanaam beneen bi ci des moom mooy ne daf koo génnee. maanaam moom mooy euh, mooy génne ko ngir buñ ko génne ba pare ndax dañ koy waat wala duñ ko julleewaat loolu borom xam-xam xattaa ci fuqaha maliki rahmatullah dañ cee wuute waaye wax ji gën a siiw mooy wax al imam ibnu qasim rahimahullahu taala mooy ne buñ ko génnewaatee faaw dañ ko war a julleewaat waaye ku mel ne ashab moom d'accord ci loolu ku mel ne ibnu wahab rahmatullah alayhi ñoom dañoo jàpp sax ne maanaam loolu ci jëmmi boppam moo daganul maanaam di ko génnewaat di ko di golaat li nga xamante ne tamit moom mooy euh, Euh, ñi nga xamante ne ñoom mu mooy masala bi des moom mooy wàllu toxal gi maanaam jële ko ci benn dëkk maanaam rob nañ ko ba mbore ñu génne ko waaye ngir yóbbu ko ci beneen dëkk loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi lu ëpp ci boroom xam-xam yi dañ koo ñaawlu maanaam am na sax ñu ci yegg ci ne dafa xaraam imam Ash-Shafi'i nag moom rahimahullah taala dafa ne dana dagan ba mu des su fekkente ne dañ koy maam dana dagan ci bu dee dañ koo war a yóbbu makka wala madina wala baytul maqdis maanaam bu bu dee ci yii la moom dana dagan waaye bu dul yii rek day nekk loo xamante ne dafay xaraam maanaam mu am ci ñoo xamante ne tamit maanaam euh, ku nekk am na ma euh, ay ay yu bari am na ci waaye li ci gën a dëgër mooy ak maanaam ñàkk mën a nekkam ngir lan ngir ñàkk xorma gi nga xamante ne moom moo am ci mbir mi maanaam li rob néew ba pare di ko si dindiwaat beneen bi ci des nag moom mooy ne euh, ñenn ci borom xam-xam rahmatullah alayhi ñoom si maanaam dindi googu moom mooy fekk suulaguñ ko maanaam ñu ko xësee buñ ko xësee ba suul moom ba ba maasale suuf si moom faawu dootoo ko mën a génneeti maanaam ñoom teqantal boobu lañ def buñ ko xësee ba dugal ci bàmmeel bi mënef na koo génnewaat waaye bay fekk ne su rob maanaam maasale ñu suuf si ci kawam mais buñ ko xësee ba def fañ ko foofu lañ koy bàyyi eh, ñaanal ko boromam subhaanahu wa am na nag ñi nga xamante ne tamit yeneen i wuute yoo xamante ne euh, am na ci léegi nag mu des maanaam comme masalan nit ki génnee àdduna ndakaaru ñu daal di ko war a yóbbu euh, euh, Thiès maanaam ngir ne ay mbokkam fa la ne wala bokk yooyu loolu moom boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bañuñu ko waaye dañ ne li gën mooy nit ki fi mu génnee àdduna ñu rog ko foofu waaye nag donte li nga xamante ne moom mooy loolu moom mooy li gën waaye su fekkente ne dañ ko war a jël yóbbu ko ci beneen dëkk loolu dafa war a am illa maanaam cause tax tax bu rëy bu war a tax lu demee nekke ñu yaakaar ne bërëb boobu nga xam ne moom la wax ni moom moom lañ koy yóbbu moom mu woon ne nañ ma foofu wala boog mu nekk loo xamante ne daf ko dañ ko fay rob ngir ne dafa am barke bu rëy bu ñu fa yaakaar maanaam ak yu noonu waaye su loolu rek maanaam du nekk loo xamante ne lu ñu lu ñuy rafetlu la maanaam xilaaful aw laa lay doon maanaam dafay wuuteeg li nga xamante ne moom mooy euh, euh, li li li li yëy mu ne kon nag fa nafa fa kon kon mu solal ko comme xamisam maanaam kon lii moo tax imaam al rahimahullahu taala indi ko maanaam moom mooy ne kon lii ci ci lu tax partie beneen bi ci des moom mooy wa man kuffina bi xayri xamisin maanaam moom mooy ne ci imaam al moom ni mu déggee wax yi rahimahullahu taala mooy ne maanaam jotuñu ko woon a solal xamis bi maanaam mu loolu moom moo tax ñu ñëw moom moo tax ñu mën koo génnewaat di ko solal xamis bi su dul woon loolu kon loolu doonu woon maanaam doonu yonent bi sallallahu alayhi doonu ko woon def te loolu tamit wax la joo xamante ne comme niñ ko gisee ñenn ñoonu lañ ko gisee moo tax ñu ne Seydina Jaabir radiyallahu anhu daf cee fekke ci événement bi mbir yoo xamante ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu fekkewu ko loolu moom moo tax ñoom ñaar seen nettali yu wuute moom mooy ne Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom li mu fekke moom mooy bi ko Abdullah ibn Ubay di Abdullah ibn Abdullah maanaam doomam ji moom bi mu koy laaj naan eh, eh, jox ma yére maanaam xamis bi te nga ñëw jullee ko te nga jéggalul ko moom loolu la fekkee yeneen bi saa saam dig ko ko léegi nag naa Jaabir moom moo fekkee nan la événement bi demee dëgg-dëgg maanaam naka la euh, événement bi demee dëgg-dëgg loolu moom moo tax ba mu ñëwee ba ci kanamam nag di ko jullee yeneen bi salaa salaam ba mu koy ba mu ko jëlaatee muur ko di ko jullee moom la ko Seydina Omar radiyallahu anhu xëcc ne ko déedéet maanaam bu ko jullee mu ne ko ndax du waaju naa fekk la ah. xanaa yàlla euh, xanaa yàlla terewul a ngay jullee naafeq yi maanaam euh, loolu euh, mu ne ko déedéet man dañ maa tànnaloo rek diggante ñaari mbir yi maanaam boobaa loolu moom moo tax yéen ba alxuraan nag wàccaat nag dëppoo ak Seydina Omar radiyallahu anhu loolu tamit ci benn ci yi nga xamante ne moom mooy muwaafaqaatu Seydina Omar yi la radiyallahu anhu nga xam ne day am benn avis bu mu dégagé yeneen bi sallallahu alayhi wax sax leneen alxuraan ñëw wax ne non li Seydina Omar wax radiyallahu anhu loolu la ñuy wéel maanaam loolu man finalement man acte bi yàlla mujj acte moom mooy ne bi nga xam ne mooy mujj wéy ci mboolem jullit ñi moom mooy li Seydina Omar mujj wax radiyallahu taala anhu loolu tamit day wane manaqib yi maanaam màggaayu Seydina Omar radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne borom bi subhaanahu wa taala maam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne maanaam ci eh, eh, muhaddas muhaddas la maanaam moom mooy koo xamante ne yàlla daf dafay wax ak moom di ko xamal maanaam te fekk du yenent kon xadis bi imam Buxaari rahimahullah taala indi na ko xadis numéro 1350 ak 5795 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 2773 imam Nasaa'i indi na ko xadis numéro 1901 2019 ak 2020 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 14986 ak 15075 kon xadis yi Eh, kon day gis ne xadis yi waa asxaabu kutubu sitta ñett ñoo ko ci indi mooy imaam Buxaari moom Muslim moom an-Nasaa'i amma ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy bokk ci asxaabu sunan yi mooy moom Abu Daawud moom Tirmizi yi ak imaam Ibnu Maaja ñoom indi wuñu ko rahimallahu jamii mu ne baabul kafani bi xayri bi xayri xamis maanaam baabu buntaal kafani càngaay bi xayri xamis ci lu amul xamis maanaam ñu indi càngaay yépp loolu mooy rek Euh, càngaay yi comme ñetti càngaay lay doon ñetti yi maanaam xamis du ci am comme ni nga xam ne noonu euh, lañ ko gise woon ne moom mooy euh, moom mooy moom mooy mazhabu shafii ak xanaabila yi hmm. rahmatullah alayhim amma yi nga xam ne ñoom ñooy xanafi ak maliki yi rahmatullah ñoom day am xamis maliki yi sax dañ ci yokk amaama maanaam moo tax xanafi yi rahmatullah alayhim ñoom ci ñoom li ñuy wax ne li tax ñu sib maanaam xamis bi du ne jëmmi xamis bi lañuy bañ waaye ngir ne buñ ci tegee xamis bi bu boobaa day daal di tóolu maanaam du dootul tóolati comme nag te dañoo bëgg mu nekk lu tóol loolu moom moo tax bu boobaa xamis bi dañ koy dindi waaye moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu rob amul xamis boobu waaye su fekkoonte ne nit ki dañoo bëgg a tóolal mbir mi maanaam mën nañ ko def xamis mu nekk lu tóol maanaam dañuy def ñaari la ñaari euh, lifaaf maanaam mooy yi nga xamante ne moom mooy mbalaan bu gën a mag ba pare daal di teg xamis ci digg bi maanaam bu boobaa loolu dana mën a nekk loolu moo tax xanaf yi rahmatullah ñoom noonu la ñuy gëndalee mbir moomu Euh, ñi nga xamante ne ñoo euh, waaye bu naree tóol bu naree bu naruta tóol rek boobaa kamis bi dañ koy dindi ñoom noonu la ñuy déggee xadiis yi si nga xamante ne ñoom ñoo ci wax amma fuqahaa u maaliki rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne dañ koo tuddul waaye am na maanaam euh, dañoo tuddul kamis gi ak amaama bi maanaam dañ ko boolewul ci cosaan waaye nag wax ji sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ne amul kamis amul amaama loolu moom day tegtale ne amul rek maanaam mm-hmm. والله اعلم آه، اما ترجمه بي نك موي باب الكفن بغير قميص موم تي ني اوب نون لا مل واي امام ال امام مان المستملي المستملي رحمه الله تي روايام موم داف اندي فله مانام كون دو ريبيتيشن مانام تي ريبيتيشن خم كي بو نجهك بي بونتو بونتو بي ني ويسو لغي موي باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف ci riwaya mustamli mom mo am wa man kufina bi xayri xamisin fi tamit waye ñeneen ñi ci dess li ëpp ci ñi solo saxé bi ñom dañoo ñom baat bobu fi lañ ko indi moy babul kafani bi xayri xamisin da nga mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al kitab li hadathana abu nuaym tamam al imam fadl ibn dukayl dégg nga ibn hamad rahimahullah taala muy abu nuaym al mulaayi al kuufi rahimahullah taala di waa kuufa Euh, moom mi ngi gane àdduna cent trentième année génn àdduna cent dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne qaala xaddathana Sufyaan te moom ibnu Saïd ibnu Masruuq ath-Thawri ne waa Kuufa lañ ñoom waa Kuufa moom solo mooy Abu Abdullah moom mi ngi gën a àdduna 97e année génn àdduna 161e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu ibnu Urwata ibnu Zubair ibnu al eh, ibnu Khuwaylid al-Asadi eh, maanaam ibnu Asad eh, dégg nga radiyallahu taala anhuma moom Hisham noonu mooy Abu Abdullah wala Abu Munzir dañ koy Abu Bakar Euh, al madani di waa madinatu munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam gane àdduna sant yi ñu mën a génnaw na cent quarante-quatre mën a ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Urwata mooy ibnu Zubayr ibnu al Awaam ibnu Xuwaylid ibnu Asad al Qurashi al Asadi dégg nga moom euh, Abu Abdullah di waa Madina euh, radiyallahu taala anhuma moom mi ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci waa waaw bokk ci fuqahaa sab'a an Aysata ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha habbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam habibatu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam Aysata bint Abu Bakr as-Siddiq muy as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma gane moom mu ngi génn àdduna ci cinquante septième euh, année cinquante huitième année cinquante huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko gisoon Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala moo ko jullee woon mu ne naa qaala mu ne ku fi na la maanaam càng nañu annabi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo sàng moom Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii salaasati aswaabin ci ñetti mbalaan yoo xam ne suxuulun yoo xamante ne euh, yére bu weex la te maanaam maanaam bu bu bu set bu ñu defaree euh, coton euh, maanaam moom coton rek lañ koy mën a defaree mooy kur suuf fin ci coton lañ ko defaree. maanaam ah, kur suuf coton la moom euh, yaman lañ koy defaree comme niñ ko gisee woon tamit ah, lay sa amul fii xaa ci moom yére boobu xamisul xamis wala amaama te amutoon amaama kon. amaa kon niñ ko gisee fuqahaa Maaliki rahmatullah ñoom dañuy wax ne ahankay Euh, maanaam li mu bëgg a wax moom mooy ne ñett yooyu yeneen yu maanaam soxool yi ñoom ñoo amuloon amaama ak kii mais sinon dañoo cee boole yeneen maanaam moo amuloon xamis ak amaama maanaam lool moom moo tax ñoom ñu wuute eh, maanaam borom xam-xam yi wuute ànd ak gis nañu eh, saxaaba yi radiyallahu anhum ñu sol yeneen yi yeneen yi maanaam ñu def maanaam comme ni nga xam ne noonu la ko fuqaha maliki yi di waxee rahmatullah alayhim nga xam ne day ànd ak Euh, xamis tamit day ànd ak amaama mu nekk kon ñett yoo xamante ne xamis boo ko ci boole ak amaama bi mu nekk juróom yére loolu moom moo tax fuqaha maliki rahmatullah ñoom ñu ne juróom mbalaan lañ koy euh, lañ koy defarale góor te loolu moom mooy li gën amma ñeneen ñi ci des ñoom ñetti mbalaan lañ wax la ñuy defal góor bu dee jigéen juróom mbalaan bu dee maliki rahmatullah juróom mbalaan la pour góor juróom-ñaari mbalaan pour jigéen wallahu alam xadis bi Eh, imaam Buxaari rahimahullahu taala indi woon nag xadis numéro 1264 dana ko indiwaat léegi xadis numéro 1272 1273 dana ko indiwaat itam xadis numéro 1387 imaam Muslim dina ko xadis numéro 941 ñetti yoon imaam Abu Daawud dina ko xadis numéro 3151 imaam At-Tirmidhi dina ko xadis numéro 996 imaam An-Nasaa'i dina ko xadis numéro 1897 ak 1898 ak imam ibnu maaja na ko xadis numéro 1469 imam malik na ko xadis numéro 596 ak 598 imam ahmad ibn hanbal na ko xadis numéro 24122 24186 24625 24869 25323 25600 25680 25795 ak 25949 kon dañu gis ne waa sahabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ suñu xadis bi rahimallahu ljamia waa qaala bil isnaad muttasil fi awwalil kitaabi li haddathanaa musaddad ibnu musarhad ibnu musarhad ibnu mustawrad ibnu murabal ibnu mukarbal abul hasan al asadi al basri rahimahullahu taala gane àdduna maam génn àdduna deux cent ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon waa Basra mu ne qaala haddathanaa Yahyaa te moom mooy imaam ibnu al-Qattaan Euh, di waa Basara gane àdduna cent vingtième année génn àdduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Hisham mooy ibnu Urwata ibnu ah. qaala haddathanii abii te mooy Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam mu naan radiyallahu ta'ala anhu mu naan Aïcha mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi ne naka ndawal yàlla li ci ñetti mbalaan yoo xam laysa amul fiihaa ci mbalaan boobu qamiisun qamiis wala imaama amul tamit amaama Euh, euh, xam nga euh, boo xoolee kon xadis bi dinañ gis ne imaam Buxaari rahimahullahu taala daf ko indi fii maanaam daf ko indiwaat maanaam donte wax ji amul lenn lu ci yokk waaye dafay dëgëral ne ñi ko soloo ci Hisham ibn Urwa bëri nañ ku njëkk ki moom mooy Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ki nga xam ne moom moo ci tegu moom mooy Sufyaan as-Sawri ki nga xamante ne moom mooy teg fi moom mooy Yaxya ibn Saïd al-Qattaan maanaam ñoom ñëpp ay ngënk lañ maanaam eh, nga xamante ne kon dañuy xam ne xadis bi maanaam sikki sàkk mënu cee am te dana ko indiwaat ci eh, bi beneen riwaaya boo xamante ne eh, tamit loolu tam day gën a dëgëralaat màggaayu maanaam riwaaya bi muy ci mu jële ko ci imaamuna Malik rahimahullahu taala xadis bi comme niñ ko gise woon waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu jamii mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li baabul baabul kafani bil amaama kafani buntu bi moom mooy buntu eh, eh, eh, càngaay bila amaama ci lu amul amaama amaama mooy li nga xam ne dañ koy takk ci bopp maanaam kon moo ne morceau bi nga xam ne dañ koy takk ci bopp bi bu ko defee mu nekk comme kaala ci bopp bi loolu nag koko ko ko loolu moom mooy li nga xamante ne moom la fuqaha maliki rahmatullahi saxal ñoom rek ñoo ci waa masaahibul euh, arba'a ñoom ñoo ko ci saxal maanaam muy euh, kon ñeenti euh, muy muy muy muy muy muy kon benn kàddu boo xam maanaam benn wuute kon boo xamante ne borom xam-xam yi wuute nañ ko ak ñeneen ñi maanaam fuqaha maliki rahmatullah wuute nañ ko ak jamaa waaye comme ni nga xamante ne noonu moo tax imaamu malik rahimahullahu taala moom donte soloon na xadis bi ci moo ta maanaam waaye dafa solo tamit yeneeni xadis yoo xamante ne rawatina yi nga xam ne mooy sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom mu neen bu ñuy mu mu wax ko ba pare def ko maanaam di sang moom buy buy buy sang muy sàngee juróomi mbalaan góor yi ba pare di ko wutal xamis ak amaama loolu moom moo tax moom mu ne ba pare loolu noonu moom sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ma doon def mu xam ne lii kat maanaam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko mën a la ko la ko la ko jële te Euh, loolu tamit am na yeneen yeneeni xadis yoo xamante ne dañu nekk ci yeneeni téere yi comme demee na Tabarani ak yeneen ah ñoo xamante ne tamit dañuy saxal ne maanaam xamis ak amaama da ciy am maanaam loolu moom moo tax boroom xam-xam yi wuute ci du ne dañoo gis xadis yi ba pare daal di bañ loolu ëppante nañu ak loolu maanaam boroom xam-xam yi dañuy xam loolu moom loolu danga ko war a njëkk dindi li ñu ñi war a njëkk dindi euh, ci ci ci raisonnement bu fekkente ne xadis yi ñëw nañ noonu te ñoom mu leer na ni ñii xamoon nañ xadis bi parce que li la wane ne imam Malik xamoon na xadis bi leer na mooy lan mooy moom ci boppam moo ko solo maanaam moom ci boppam soloo na ko te boroom xam-xam yu mag yi dañ koo jëlee ci yoonam ku mel ne imam al Buxaari ñoom imam Muslim rahmatullah alayhi maanaam kon li nga xam ne moom la ñuy dindi nag maanaam moom mooy bi ñu njëkk dindi mooy ne ameen xam na xadis bi ba pare jëfewu ko fekk loolu bu amee mooy ne dafa fekk ne dafa am leneen loo xamante ne moo gën a dal ngir yi mu gis yeneen yu bari maanaam loolu moom moo tax wallahu taala alam li nga xam ne nag moom mooy zaahiru mbir mi mooy ne ñett yi baax na juróom yi baax nañu loolu lay tekki waaye bu dee ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñett yi la ñu tudd ci xadis yi gën a dëgër doonte am na yeneen xadis yu tudd juróom yi waaye li gën a dëgër mooy ne ñett yii moom la ñu tudd moo tax sayyidat Aïcha radiyallahu taala anha précisé ko euh, te Hisham ibn Urwa maam ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu taala moom la ñuy solowee eh, eh, xadis eh, boobu te da ngay gis ne maanaam ci mbooleem ñi nga xam ne moom mooy riwaayaat yi da ngay gis bu ñëwee ci moom lay doon ndax beneen bi ci des maanaam gisoon nañ ne solo na ko kon ci Sufyaan mm-hmm. as-Sawri ci Yaxya ibn Saïd al-Qattaan ci mm-hmm. abdullah ibn mubarak al marwazi ci imam malik ak ci wuhayb ibn xaalid dina ko solowee ci moom tamit ah, ah, moom mooy al bahili ah, rahimahullah taala maanaam kon dañuy gis ne kon ci ñi ko solo yëpp ñoom ñëpp ay ngënk lañ ay ñu dëgër lañ te ñëpp ci kon madaaral xadis mooy hisham ibnu urwata ibnu zubair ibnu awam mu jële ko ci baayam baayam jële ko ci tàntam dégg mu ne qaala bil isnaad muttasil fa awwalul kitaabi lay xaddathana ismail te moom mooy ibn abi uways muy ismail ibn abdallah ibn abdallah ibn uways ibn malik di doomu di di jarbaatu imaamu malik voilà di doomu sër imaamu malik mooy jarbaatu imaamu malik rahimahullah taala muy abu abdullah al afbahi al madani rahimahullah taala mu ngi gane àdduna 139 année génn àdduna 226 jàpp 227 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne malik te moom imam bi mooy imam malik ibnu anas ibn malik ibnu abi amir ibnu amr al asbahi al himyari rahimahullahu taala nekk euh, waa madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam nekk sax imam ba bañ koy tuddee imaamu daarul hijra mm-hmm. rahimahullahu taala mu ngi gane àdduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Hisham ibn Urwata ibn Zubayr ibn Awwam mu jële ci bàyyam mooy Urwata ibn Zubayr ibn Awwam mm-hmm. an Aisha mooy mu'mina radiyallahu taala anha maam day gis xadis euh, yi da ngay gis euh, Hisham ibn Urwata léeg-léeg maam ci riwaayaat yi da ngay gis xaddasani abi maanaam da ngay gis ne xaddasani abi an Aïcha maanaam comme niñ ko gisee ci riwaaya bi weesu mu naan kon radiyallahu taala anha anna rasulallah naka ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ku fi na ñu ngi ko sànge fii salaasati aswaabin ci ñetti yére bii ñuy weex kon loolu leer na ne ñetti yére la ci ñetti yére lañ ko sànge weex sa saxu yoo xamante ne yu ñu defaree coton la te jóge Yemen laysa amul fiihaa ci yére boobu ci lañ ko lañ ko sànge xamiisun muy xamiis wala amaama amul amaama kon loolu day dëgëral masabu ñi nga xam ne ñooy Shaafi ak Xanaabila yi rahmatullah alal jamii xadis bi comme ni ñu ko gisee waa saabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu jamii mu ne baabul kafani min jamii al maali wa bihi mu ne baabu buntu alkafan càngaay min jamiil maali ci mboolem alal gi wa bihi ak maanaam maanaam min mooy ci lenn ci jamiil maali mboolem alal wa bihi ak ci alal gi yëpp maanaam mooy lan mooy nit ki su làqoo génn àdduna euh, fekk euh, ah, maanaam bu ñu koy sàng càngaay gi ci alalam gi lañ koy jële maanaam ñu defal ko ci càngaay gi te attee càngaay gi moom mooy jëmmi attey li nga xamante ne moom mooy sang ñi koy sang bu dee dañ leen di fay ak it ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy rob bu dee dañ leen di fay maanaam mooy lépp loo xamante ne dafa jëm ci affaire funéraire yi loolu yëpp maanaam boobu dañ koy jëlee ci alalam maanaam loolu nag la ñuy njëkk a jëlee te loolu la ñuy jiital ci kaw bor maanaam bu génnee àdduna loolu la ñuy njëkk a euh, toppatoo ci alal ji bu ñu paree ci loolu ñu doog a jël ñu doog a wax bor yi bu ñu paree ci bor yi ñu doog a wax ndénkaane ji waaye lool nag bu boobaa ci la ñuy doog a commencé xalaat nag ndax def na doon na daraam déet voilà loolu kon euh, bu fekkente ne léegi euh, bu fekk euh, moo tax mu ne qaala qaala ata moom ata ibn abi rabah rahimahullah taala wa zuhri mooy moom az-zuhri mooy ibn shihab voilà wa amr ibn dinar mooy al-makki wa qatada mooy ibn da'amat as-sadusi mu ne ñoom ñëpp loolu li ñu wax moom mooy wax ju mel nii wa qaala Amru ibnu Dinaar maanaam moom mooy ne dañuy mooy mooy li ñu wax mooy ne alal ji nit ki bu génnee àdduna ci alal gépp la ñuy lan jëlee càngaayam maanaam bu demee ma xam ne loolu rek a ci des càngaay googu rek la am ci alal moom la ñuy jël euh, wa euh, mu ne nee na alxanuutu maanaam gëtt gi kiñ koy defal min jamii al ci alal googu lañ koy jële ci ci mboolem alalam gi lañ koy jële wa qaala ibrahim te moom mooy an naxaye mu ne yub daw dañuy tàmbalee bil kafani ci càngaay gi summa topp bi day nii ci bor gi summa topp bil wasiyati ci ndénkaane gi ndénk testament kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañuy ñuy eh, tàmbalee mu ne wa qaala Sufyaan moom mooy athawri ibnu said athawri ajurul qabri maanaam payu bànneel gi wal xus wal xasli ak càng càng gi huwa loolu yépp minal kafani ci càngaay gi la bokk maanaam bu ñuy wax ci kafan càngaay gi maanaam eh, fayu ki ñi sang wala kiy sang ak fayu Euh, kii voilà ki ki nga xam ne mooy gas bàmmeel bi loolu yépp ci lay daal di bokk maanaam kon da gis ne imaam al Buxaari rahimahullahu taala li mu namb ci bunt bi boo gisee maanaam kii yi mu indi euh, muallaqaat yi mu indi mooy ne dafay wane ni lépp alal maanaam nit ki li ñu war a njëkk bàyyi xel mooy li ñu koy waajale d'abord ngir mu dem wuyu ji boroomam maanaam ngir ñu yóbbu ko ci armée ci bàmmeelam loolu mooy li ñu war a njëkk toppatoo ci alalam balaa daraa xew te loolu moom moo tax mu indi buntu bi fii nii moo tax mu indi tamit wax yi yëpp boroom xam-xam yii yu màgg yi rahmatullah alayhi ngir dëgëral loolu mu doog a indi nag xadis bi nga xamante ne mooy xadis seydna abdullah abdurrahman ibn awf radiallahu taala anhu mu ne qaala بالإسناد المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أحمد بن محمد المكي أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة ابن الأزرق ابن عمرو المكي الأزرقي رحمه الله تعالى moom mooy abul walid mooy daaxanteram kon abul walid al azruqi mi ngi génn àdduna deux cent dix-septième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye dañ koy abul walid dañ koy tamit abu mohammed der imam al buxaari rahimahullah taala mom dafa wax ne abu mohammed sax moom mooy dàqantalam rahimahullah taala qala hadathana ibrahim ibnu saad te mom moy ibnu ibrahim ma ibrahim ibnu saad ibnu ibrahim ibnu alrahman ibnu awf al-qurashi az-zuhri rahimahullah taala mooy abu ishaq moy dàqantalam kom niñ ko xamé won gisoon nañ ko gisati ñu ko gane àdduna mané gane génn 182 183 mané ginaaw ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wa sallam an saadin te moom mooy baayam saa ibnu ibrahim ibnu abdurahman ibnu awf mooy abu isxaq dañuy wax abu ibrahim moom tamit euh, rahimahullahu taala génn gane àdduna cinquante-cinquième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an abihi mu jële ci baayam mooy ibrahim ibnu abdurahman ibnu awf maam la gis ni kii baayam moo jële ci maam doom jële ci baay kooku jële ci doom ko jële ci euh, maanaam maamam kooku jële ci maamaatam maanaam noonu la demee mooy Ibrahim ibn na ibn Awf al-Qurashi a zuhri rahimahullah taala mooy tamit Abu Ishaq ñoom ñu da ngay gis dàqantal dañoo bokk nekk Abu Ishaq ba mu des ne euh, Saad moom dañ jox tamit Abu Ibrahim rahmatullah alayhi a mi ngi gën a àdduna kon vingt et unième euh, euh, année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn a quatre-vingt-seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon waa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam annahu qaala mu ne outiyé indi ne jox nañu abdurrahman ibn awf abdurrahman ibn awf ibn abd awf ibn ibnu abdulxaaris ibn zuhra manam zuhra ibn kilab ibn murrata ibn kab ibn luay ibn xaalib muy mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñu bokkoon ci zuhra ta ci walu yaayam ngir ne seen maanaam yaay amina waye ñu bokk tamit ci walu bayam ci kilab manam kilab ibn murrata mooy abu muhammad al qurashi al zuhri mooy euh, di nit ku ku màgg ku yéeme radiallahu taala bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy al alashar al mubasharuna bil janna moom euh, mi génn àdduna ci euh, fukki at ginnaaw gën àdduna ak bi sallallahu alayhi wa sallam at ginnaaw gane àdduna ak bi gane ci la gane àdduna voilà fukki at gannaaw ga ci la gane àdduna moom mu ngi génn euh, àdduna trente-deuxième année gannaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, moom ci madinatul munawwara ala saakine afdalu salaatu wasalaam ci bakkaal xarxat mu bokk ci saxaaba yi nga xam ne booleem xare bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xare xare na ko moom rek tamit moom la sax ne jiite ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli maanaam moom rek moo ko moo ko mës a jiite taala anhu moom mu ne radiallahu taala anhu yow man benn bés bi taamihi indi nañ ko indi nañ ko indi nañ ko bi taamihi ñamam maanaam fekk dafa wooroon mu dog ñu indi ko li nga xam ne moom lay doge muy lekk mu koy lekk fa qaala mu ne la boom nañu mu ibn Umayr si na Mus'ab ibn Umayr radiallahu bu màgg boobu ku yéemi kooku moom tamit xamante ne moom waa seen waa kër maanaam borom alal bu bari lañ woon moom mu gé bàyyi lépp maanaam dem war madinatu munawwara ala saakine afdal salaatu salaam toj ko maanaam moom moo toj madina maanaam moom mooy nga xamante ne euh, madina tey bu ñu nit ñi nekkee nii ñu ne maanaam ginnaaw yàlla mooma ngir ne moom moo fa dem à l'âge de dem waar nit ñi foofu ñooñu gëm yenente bi sallallahu salaam wasallam ne na ñëw ñu teeru ko maanaam nga gis ne kon maanaam moom te te te loolu day wane euh, ni mu mel rawatina ne moom Seydina Mus'ab radiyallahu taala anhu moom boroomi alal la woon Makka amul amul lu mu fa ñàkkoon yére yi gën a rafet la daan sol ci warwaay yi gën a rafet la daan sol or yi gën bëri la amoon waaye bi mu ñëwee Madina amu fa dara yaayam tax dani ko woon nag dangay bàyyi diine ji nga dugg wala maxaru ma dee dem jël bopp bi dugg dugg ruur ko ci suuf si tax ci naaj tëdd ci naaj bi mu ne ko boo dee garawul diine ji duma ko bàyyi maanaam loolu mooy engagement yàlla moo ma gën a lépp ak ku mën a doon yàlla moom maanaam buñ bu dee affaire yàlla daa taxaw moom maanaam amul lenn lu ñuy wax te d'ailleurs am na benn idée bu bu répandue boo xam ne du dëgg de xaajul bay nekk dëgg mooy ne masalan way wérd bala nga koo jël foog nga laaj tàggu say way jur loolu du dëgg bu dee da nga am jëkkër foog nga tàggu sa jëkkër du dëgg loolu amul benn téere bu ko indi ci téere tarixa bi amul parce que yoonu yàlla amul looy laaj ndigal sàmba wala demba amul yoonu yàlla noonu la demee kenn du ci laaj ndigal sàmba wala demba kon moom euh, bi nga xam ne moom Seydina Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu maam ñu buum ko fi nga xamante ne moom mooy euh, euh, Uhud mu ne mu moom de moo nekkoon xayran moo gënoon min nii ci man maanaam moo ma gënoon moom boom nañ ko fa te moo ma gën waaye loolu tawaadu la maanaam woyof la goo xamante ne moom la woyof rek waaye moom ci moo bachar mu bachar yi la bokk fukk yi gën a màgg ci lislaam bi ci la bokk ñi nga xamante ne seen tur sax dañ ko bind ci kaw arash fukk yoy mom ci ñooñu la bok mo am Abdurahmaan ibn radiyallahu manam kon mom bu ne moma gën manam dafa woyof rek dafa wacce bopam mune falam yu jot wayate dajut dajut loxo ñel ko ma lo xamne yu ka fanu def nako eh, sangi fi fii ci mom illa burdat ludul burda maanaam eh, Mune, ne eh, manam dina wax lan xam nga luy burda dañ ko burda moy manto mune waqutila waye mu boom nañu Hamza moy sayyidna Hamza tam radiyallahu anhu moy euh shahid bi moy Seydi Shuhada radiyallahu anhu moy moom ci Uhud lañ ko kii moy mooy bay taxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallam awwala bok rajulun way jo xamne akhar kenen la xayrum minni ko xamne moma gën manam li ci ki sàkka la ci rawi bi waye li nga xamantene mom la la waxon mom moy sayyidna Hamza ba tudon radiyallahu taala anhu mu ne ah, falam yuujat te te amul tamit loxo ñeel ko maa loo xam ne yu kaf def na ko sànge bi fii ci moom illaa burda lu dul burda maanaam moom alalam yëpp burda la woon maanaam ñoom ñaar ñoom ñëpp seen alal yëpp burda boobu moom lañ leen sàngee mu ne laqat mu ne wallaay giñ naa ni xasiitu ragal naa am yakuuna ci ne mu nekk nekkat dëgg-dëgg ojjilat dañoo teeleel teeweele lanaa ñeel tayibaat naa suñu suñu suñu suñu suñu suñu yu tey yu neexi fii xayaati naa ci suñu àdduna addun suñu dund addun yaa gu suufe gi maanaam mu ne ñooñu li ñu daj ak façon bi ñu génnee àdduna te ñoom jotuñu am dara seen àdduna seen àdduna yëpp xeexal diine ji la ba ni ñu leen boomee ñu génn àdduna ñu fi dara coono rek la ci kaw coono ñun ñu toog di lekk-lekk gu neex gi man damaa ragal ne maanaam li nu naroon a fayee àllaaxira moom la nu teel a jox fii manam lol la wax voilà moy comme le alcorane di wax manam wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nari adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna adhab al-hun bima kuntum takfuruna fil ardi bima kuntum tafsukun wala bima kuntum tastakbiruna bi ghayri al haqq wa bima kuntum tafsukun mune bis la boo xamante dañuy garal yéeféer yi safara ne leen mi ngi nii ne nag seen mboolem yi neex yi ngeen waroon a am yépp dem yóbbu maanaam amee ngeen ko ci àdduna ba pare yóbbaale ngeen ko ci àdduna te bànneexu ngeen ci nag tey nag lenn rek ngeen di am mooy mbugal gu leen di doya dal ngir sababu la ngeen doon rëy rëylu ci kaw suuf waaye tamit ngir sababu seen kàccoor di ngeen nekke woon te loolu pourtant ci yéeféer yi la wàcc mais moom dafa toog xalaat ne est-ce que moom ci boppam bokkul ci ñi ñuy waxal ànd ak ne ci fukk yi gën ginnaaw yenent bi sallallahu alayhi ci la bokk maanaam boo jëlee nit ñi saxaab maanaam yenent yi ngay génne rek boo génnee yenent yi fukki nit yi gën ci lu ñu joyal moom ci ñooñu la bokk ànd ak loolu yëpp moom nee na parce que dañ ko jox mu lekk lu neex mu xalaat ñi mu mbokkal ñi mu doon àndandool doon xeex ci diine ak doon jëfee diine ji mu xalaat ñooñu situation bi ñu nekkee suñu xam lan mooy pouvoir parce que jamono jooju ñu doon wax sax naan diine ji dina mës a dem ba law ba gars di yor ay gouverne ñii di nekk gouverneur fii ñu leen di jox ay post ak yooyu ñuy am pouvoir wala yooyu di am alal gudul gu bëri guy ñëw ci ñoom buñ leen ko doon wax sax dañ dañ dañ foog ne lépp la léegi tey nag ñoom ñoo yor poste yu mag yi nekk gouverneur yi yor di gérer état bi yor alal ji waaye tey ñu indi leen ñu ñu maanaam ñam googu mu lekk mu jàpp ne man est que li may lekk ni mu neexee nii est-ce que réellement te dafa wooroon en plus maanaam nekkutoon ni da doon lekk bëccëg gi noonu di noonu di kii de déedéet dafa woor ba pare ñu indil ko ko maanaam comme ni ngay gisee ni ñi nga xamante ne ñoom ñu njëkk ñi ñoom ni ñu doon bàyyee xel seen borom. subhaanahu wa taala waaye nañ doon bàyyee xel seen circonstance ak xiiwal gi leen yàlla defal nan lañ ko war a sante ak ni ñu war a bàyyee xel xam ne yàlla dina leen ci àtte wuuteeg ñu mujj ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne loolu normalité la fi mu ku ci réeree soom bi jàpp na ne réerul hmm? yàlla nañu yàlla sax mu ne su ma topp jaaxala mu nekk nag yabu kii di jooy manam bam waxe lol ba pare nak da tok di joy nak ah hadith bi imam bukhari dana ko indiwaat léegi mille deux cent euh, soixante ak hadith numero 4045 mom quarante cinq moom rek nag moo ko indi ci waa saabu kutubu sitta euh, ah, rahimahullahu taala manam kon bi hadith bi manam ci hadith imam bukhari Buxaari wéetu wala bokk mu ne baabun bunte ida la lam bu fekke ida bu fekke tane lam yu jot amuñu illa lulul dul sawbun ab mbalan waaxin ben dong manam moy imam bukhari rahmalahu taala dafa xam fi manam lor manam bu fekkente ne dafa lor dafa am manam beni yere mom nga am mom lañ lay solal mbalan bobu dong mom ngay sol bu ko defé ñu rob la tamit non waye nak dafa nekk lo xamantene ne cible bu fekkente ne nit ki amna benen buñ ko mëna tégal tegal muy ñaar ñu dégg ñu bayil ko ben kese dédé loolu moom dañ koo sib euh, ngir ne jamono maanaam lii lu ci jamonoy lor la war a nekke mais warul nekk loo xamante ne du lu lu tout euh, tout maanaam nit ki day day day par souci de d'économie maanaam muy muy def loolu déedéet waaw naan nañ def ni parce que quand buñ ko buñ ci jëlee li lépp après njabootam lu ñuy def nangam déedéet moo tax li nga xam ne moom moo aju ci ci ci yooyu yëpp muy sang geeg sang gi euh, parfum yi ñu ko war a defal rob gi ak yooyu maam la ca aju loolu moom bu ci kenn def économique bu kenn defal économique kenn parce que loolu moom lañ ko amal te loolu lañ ko war a taxawee ku génn àdduna nañ ko defal loolu ba pare bu ay nit nee nag léegi man maa koy def waaw kay alhamdulilah mais moom nañ ko ko defal fu fekkente ne maanaam bàyyi na fi alal ju ko mën a def mu ne mu ne kon nag euh, buntu boobu maanaam kon bu ñu amee benn yére ci benn mbalaat kese boobaa moom lañ koy defal mu ne waaye day fekk ñeneen ñi mënuñu ko defal leneen maanaam mooy nag lii lañ lii lañ man lii daal moo fi nekk waaw lii fi nekk mu ne qaala bil isnaad muttasil fi al-kitaab li haddasanaa Muhammad ibn Muqaatil al-Marwazi rahimahullah taala mooy rux abul xasan al marwazi rahimahullah taala euh, du du du razi hmm. euh, mi ngi génnaat na deux cent vingt sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala axbarana abdullah te moom mooy ibnul mubarak al marwazi rahimahullah taala abdullah ibn mubarak ibn wadah al hanzali al marwazi rahimahullah taala moom mi ngi gën a àdduna cent dix huitième année génn àdduna cent quatre vingt unième année ginnaaw gàddaa nabi sallallahu wa sallam mu ne qaala axbaranaa Shu'bata moom Abu Bistaam al-Basri rahimahullahu taala mi ngi gën a àdduna quatre vingt deuxième jàpp quatre vingt sixième année ginnaaw gàddaa wa sallam àdduna cent soixantième année ginnaaw gàddaa nabi sallallahu alayhi wa sallam an Saad ibn Ibrahim wax nañ ko léegi ibnu abdurahman ah, mu ne am ibnu ibnu sa ibnu abdurahman ah, an abi ibrahim ibnu abdurahman ibnu awf anna abdurahman ibnu awf radiallahu taala anu utiya indi nañ ko bi taamin ci ñam wa kaana te nekkoon na fa iman di aji woor maanaam kon dafa wooroon nga juddil ko ñam mu ah. fa qaala mu ne qutila boobu nañ Mus'ab ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu woote moom kat xayrun minnii moo ma gën xayrun moo gën minnii ci man ku ku bi burdatin ci benn burda boo xamante ne in ruttiya bu ñu muuree ra safa boppam badat day daal in ruttiya bu ñu muuree ra safa boppam badat day daal di feeñ rëjlaahu ñaari tànk yi wa in ruttiya bu ñu muuree rëjlaahu ñaari tànk yi ba daa mu daal di feeñ ra safa boppam mooy matul rek moo xam ne bu ñu ko defee yëkkatee ci kaw ba ne dañuy muur bopp bi tànk yi feeñ bu ñu gisee bu ñu wàccee ba te tànk yi bopp bi feeñ mu ne wa uraahu te dafa mu ne te gis naa ne yaakaar naa ne xaala dafa rey nañu waqutila rey nañ xam buum nañ buum nañ Hamza Hamza mooy ibn Abdul Muttalib mm-hmm. radiyallahu taala anhu woo woote moom xayru moo gën mi nii ci man su ma topp bu si ta ñu daal di yaatal nag la naa ñeel ñu min a duniyaa ci àdduna maa bu si ta liñ ñu yaatal lépp xoolal rek maanaam ñooñu fekke wuñ jamono ji ñi muy neex ñoom jamono ji muy metti moo tax gis nga xeexi mm-hmm. nit ki buy def ci yoonu yàlla na def rek bu bu maanaam wolof bu ñu naan njariñ loo fekkee loolu booy bàyyi xel loolu doo def dara lu baax parce que yow da ngay jàpp ne faaw man damaa bëgg a fekkee njariñ gi te nag déedéet maanaam njariñ gi léeg-léeg da ngay xam ne doo ko fekkee ci àdduna mais la ngay fekk ci àllaaxira ñooñu ca la ñu nekk jamono jooju moo gënoon ñoom ci liñ nekk parce que ñooñu ña nga woon seen wetu borom nekk te àjjana ñu leen di xéewale loolu teel a dem àjjana moom moo tane moo tane toog fii de maanaam toog. di dund dund gii c'est que lii kii nit ñi mooy ne danoo xamagul fële loolu rek la mais bu fekkente ne da dem àjjana donc mais fii fii ak àjjana mais y a même pas comparaison amul comparaison heureusement d'ailleurs que borom subhaanahu wa taala nëbb nañu xaqiqa yooyu réalité dëgg dëgg dëgg mbir mi parce que buñ ko doon jàkkaarloo moom di gis àjjana ni mel mais duñ nangoo toog fii kenn du fi nangoo toog <laughs> waaw. heureusement d'ailleurs que yàlla nëbb nañu ko dégg nga kon eh, mu ne ñu daal ñuy yaatal dégg ci àdduna li nga xam ne moom la ñuy yaatal yépp aw xaala waa wala boog mu wax ne ootinaa jox nañ ñu mi nag duniyaa ci àdduna maa ootinaa lañ ñu jox waxat dëgg-dëgg xasi naa ñu ragal nañ an takuna ci mu nekk ni xasanaatu naa su ñu yiw yépp ndekete wajjilat dañ koy dañ koo téye leen lanaa ñel mais est ñun suñu suñu suñu suñu suñu yiw yi def yi ñu jot a def yëpp dañu koo teel a fay ci àdduna parce que li ñuy xéewal yi dafa dafa bari en fait imaginer bu doon moom moom mooy ñoom ñooy wax loolu ñun lan lañu war a wax ba pare ñoom dañoo fegu nekk ci ci ci jaamu yàlla rek daa iman ñun ñi nga xamante ne suñu xëyee ba ba nit ñuy nelawe guddi gi ak bëccëg gi yëpp ci ci ay mooy yàlla la ñuy jàllarbi ko imagine nga léegi ñun lan la war a wax mais ànd ak li ci yéeme mooy ñun dañ cee boole bu ñun ñoo gën a dal xel moom dañ cee boole ñun suñu xel daa dal contrairement ak ñoom te kii ñun ñëpp buñ ñu jëlee jël sëriñ si ñu am yépp moom moo ñooy gën maanaam moom moo ñu boolee gën ba pare ñun suñu xel dal moom xelam dalu dañoo war a xam ne affaire yi am na lu lu lu luus am na am na am lu nu war a bàyyi xel non wax mu ñun de ñun ak suñu sëriñ yi buñ ñu boole ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp moom moo ñu gën moom kenn léegi moom muy am cas conscience bii ñun suñu xel dal yàlla nañu yàlla sàmm mu ne su topp nag jaala mu nekk nag yam kii di jooy xattaa mbete taraka mu bàyyi ak taama ñam bi maa nga gis ne waxu ko noonu rek pour wax ne ah yi ñu ngi ci xewlu ah kii mais te réewul dañuy xewlu de déedéet <laughs> ah <laughs> ah déedéet maanaam da ko wax ba pare maanaam muy jooy <coughs> dégg comme ni ñu ko gisee xalis bi a Buxaari yi nag xadis bi weesu benn yoon la ko moo des mu tuddiwaat ko mooy xadis numéro 4045 kon moom daf ko wéetoo wala ñu jël ñëpp ci ashaabu kutubu sitta rahimallahu aljamii mu ne baabul buntu bu fekkente ne amul kafanan càngaay illaa lu dul maa loo xam ne yu waar yi day daal di nëbb rasahu boppam aw xadama yi wala ñaari ndëgg ñaari ndëgg tànk yi boobaa xastaa day daal di nëbb rasahu muur rasahu boppam maanaam lii mooy sensu priorité bi tamit bu dee càngaay gi mu am benn kese la boo muuree bopp bi tànk yi feeñ boo muuree tànk yi bopp bi feeñ bu boobaa bopp bi ngay muur bàyyi tànk yi tànk yi bu boobaa da ngay jël mbopp xeetu mbopp nga teg ko ci mooy mooy ñax walla nga wut leneen loo ko mën a muure bu fekkente ne nag mbir mi matul ah herbe voilà bu fekkente ne mbir mi matul amul lenn loo ko mën a def ni ngay mën a def moom mooy da ngay jël euh, maanaam dañuy njëkk muur aw rey aw rey li ñuy njëkk bàyyi xam li ko dalee ci jumbax mi ba ci oom yi loolu la ñuy njëkk muur en priorité suñ ko muuree ba pare nag ñu doog a muur li nga xamante ne euh, maanaam yeneen yi ci des nag ñu jël ngooñ wala ñax wala wala ñu xool leneen luñ ko mën a tege lu woyof ñu teg ko ci kaw ba muur ko léegi nag nañu xool. Euh, su fekkente ne maanaam euh, ak lu mënti xew jamono jiñ koy sang moom danoo war a muur diggante ju mbax bi ak oom ji ba pare awra yi kenn amul droit xool ko kenn amul droit laal ko ak lu mën a xew beneen mbir bi tamit moom mooy ci wàllu sang néew ak yeneen yi ci aju règle bi mooy ne doo laal lu dul li nga xamante ne moom risque amul ci mu yàqu maanaam bu dee boo boo boo laalee masale fii nga gis yaram bi commencé yàqu loolu dootoo ko laalati en plus loolu maanaam loolu tamit mooy règle bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab la xaddasana Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas moom gisoon nañu Umar ibn Hafs ibn Ghiyaas ibn Talq voilà ibn Muawiyah an-Naxa'i muy Abu Hafs an-Naxa'i waa mu ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi ci Kuufa lu qaala xaddasani xaddasanaa abi suñu baay nettali nañu muy Hafs ibnu Giyaas ibnu Talq ibnu Muhammad ibnu Maalik ibnu Alxaaris ibnu Salaba ibnu Aamir ibnu Rabiata ibnu Aamir ibnu Jushm ibnu Wahbil ibn Saad ibn Malik ibn Nakhm an-Nakha'i Abu Umar an-Nakha'i al-Kufi rahimahullah ta'ala nekk qaadi foofu te Kufa gën gane àdduna 117e année génn àdduna 194e année ginnaaw ga Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathanaa al-A'mash te moom mooy Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili rahimahullah ta'ala muy Abu Muhammad waa Kufa nekk imaam xaafis bu mag boobu rahimahullahu taala cosaanam nekk Tabaristan gan génn gane àdduna soixante-et-unième année génn àdduna cent quarante-cinq jàpp cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne qaala haddathana Shaqiq te moom mooy ibnu salama abu wail al asadi rahimahullahu taala muy shaq euh, di waa kuufa euh, rahimahullahu taala gane àdduna benn at ginnaaw gàddaay yonent bi salaam moom mu xadaram la mm. génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi salaam maanaam ci ñi nga xamante ne dañoo dundu jamono yonent bi salaa salaam nekk jullit te gisuñu ko la maanaam euh, mu ne qaala xaddasanaa xabaab radiallahu taala mooy seydnaa xabaab ibnul arat ibn jënd la رضي الله تعالى التميمي مي ابو عبد الله ولا نيو ابو يحيى التميمي والكوفي رحمه الله تعالى دي صحابه يونتي صلى الله عليه واله وسلم ا ميغي ген ادنا 37 انا غيناو غدا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم تي لي خمتن مو موي لي لي غنا وير دونت ام لا نيو انا بي لا ген ادنا ا سيدنا dégg nga moom la mooy ki njëkk a rob ci kuufa maanaam moom mooy ki njëkk a rob ci kuufa bi ñu jugee ci maanaam ci sëfeen maanaam xew-xew boobu rahimahullah taala ci saxaaba yi radiallahu taala anhum moom mu ne radiallahu taala anhu qaala mu ne haajar naa haajar naa gàddaay nañ ma annabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne naltabisu ñuy làmbat wajhallahi maanaam jëm yàlla maanaam yàlla rek moo ñu taxoon a jug bi ñuy gàddaay di jug dem ci yonent bi sallallahu alayhi waaye fa waqaa mu daal di rot mu daal di rot ajuru naa suñu pay alallahi ci yàlla moo tax fa min naa maanaam moo tax suñu pay rek ci yàlla la nekk moo tax fa min naa am na ci ñun man koo xamante ne maata dafa génn àdduna lam yàqul lekkut min ajrihi ci payam shay an dara maanaam payam gi mooy parti wu fay li ñu ko waroon a li mu waroon a am ci àdduna moom ngañaay li bi bi mu ñëwee maanaam xam nga def effort nekk groupe di def effort ngir tabax dara ngir defar dara moom am na ñoo xam ne moom jariñ la ba muy juddu fekki wuñ ci dara loolu lay wax noonu. minhum bokk na ci ñoom Musa ibn Umayr sayyidina Musa ibn Umayr radiyallahu ta'ala anhu wa minna am nañ ci ñun nag ñoo xamante ne man ñoo koo xamante ne ay naat maanaam euh, euh, euh, meññ na loxo ñeel ko samaratu meññeto maanaam naat na naat na meññ. samaratu fo huwa mom day eh, yahdibuha mi ngi koy wit manam garab ga mu mom lamu cai mu lamu lamu la mu ci aduna mom mi ngi cay witt bu baxa a baax mom baax uti la moom Seydina bin Umar eh, radiyallahu taala anhu xuti nañ ko yoma ma bisu ko xol falam najit te amuñu man nu kaffinu luñ ko mure luñ ko sangé illa burda tan lulul burda nga am na idaaxa tay naa bu ñu muuree bihaa ci moom rasaw boppam xarajat day daal di génn rijlaahu tànk yi wa idaaxa tay naa bu ñu muuree rijlay yi ñaari tànk yi xaraja mu daal di génn rasaw boppam rasaw boppam muy wax ju nuroog wax Seydina Abdurahmaan na aw foox radiyallahu taala waaye nag fa amaranaa mu digal ñu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam an nuxattiya ci ñu muur rasahu boppam wa an najaala te ñu def ala rijlayhi ci kaw tànk yi minal izxiri ci mbopp Euh, kon loolu moom nga def ko ci tànk yi mooy xeetu caxat voilà maanaam moom la ñuy def ci euh, ci tànk yi ah léegi euh, sa kon xadis boobu imaam Buxaari dina ko indiwaat xadis numéro 3913 ak 4047 4082 ak 6448 imam Muslim dina ko xadis numéro 940 imaam Abu Daawud dina ko xadis numéro 2876 ak 3155 imaam Tirmidi dina ko xadis numéro 3853 imaam An-Nasaa'i dina ko xadis numéro 1903 imam ahmad ibn hanbal indi nako hadith numéro 21 21077 ak 27214 day gis ne hadis bi waa sahabu ko moom des imam ibn maaja rahimallahu